auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi mbokk yi ñoo ngi leen di ku ci nekk di la nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen sant ci wuy si bi ngeen ñu wuy si fii ci Masalikul Jinaan ñu di leen jottali ay ndigal yoo xam ni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 ba pare li nga xam ne moom la ñuy sàmmoog moom muy les mesures barrières tamit nga sàmmoog moom euh, sa kemtalaay kàttan ndaxte loolu buñ koy wax kenn waruñu cee jëkk ndaxte ku la ni moytul daanaka dafa bëgg nga mucc mucc nag yàlla boo ko yor yàlla mooy ki nga xam ni kii ku mu bëgg nga mucc di nga mucc waaye yàlla tamit moo digle ni ñi nga xam ne ñii dañoo am xam-xam te mu wax leen ci alquran lu leen ñi nga xam ni mooy boroom xam-xam yi ulul albaab yooyu boo déggee ñu koy wax mooy ñi nga xam ni jàng nañu xam nañu ba pare seen xam-xam màcc na ci lu demee ni maanaam mbirum paj bu fekkee ni dañu ni nañ sàmmoo ak ndigal nañ aw fii ñun ñëpp bu fekkee ni bii euh, juyowul ak li ñu diine sant dañ coo war a ànd te it sëriñ bi loolu la bëgg rek na mu ko digalee fële ca Touba digle ko tamit ca jumaa ja nga xam ne bii mooy suñu jumaa ju mag jooju nga xam ne fa la suñu yaakaar nekk Cheikhul Khadim Khadim Rasoul lay àtte Touba mooy àtte fii ci Masalikul Jinaan di àtte ci tamit fii nga xam ne fii dafa maa jël teg ma ci kanamu taalibe yi ñu àndandoo di liggéeyal sëriñ bi muy ndax maanaam dun bi nga xam ne moom la ñu tuddee région de Dakar ñu bëgg def appel fépp foo xam ni kaddu sëriñ bi moo fa jub ak képp koo xam ne kii fa nga nekk sëriñ bi nga fa nekkal ak képp koo xam ne kii yaa ngi wuyoo ci turu yoonu murit sëriñ bi mi ngi lay digal ni mesure yooyu nga xam ni état bi édicté na ko muy fépp foo xam ni dafay jàkk wala muy juma wala ñu fay dajaloo te dajaloo bi nga xam ne bii war a nekk dajaloo bu yem ci ni ko état bi édicté mu ngi sant mesure barrière yooyu ñu def ko mooy ku fi ñëw di julli si wala ngay dem di julli ji ca barab yooyu na nga sol sa masque boo ñëwee tamit boo mënee àndaale sa gel nga indi def ci sa poos di ko raxas say loxo boo ko amul mi ngi digle ña nga xam ne ñii ñoo ŋànk jàkka ya wala ñoo fa nekkal sëriñ bi ñu fexee def organisation bi ñu defoon daaw bi lii amee ba nga xamee ni bii kuy dugg ci jàkka ya na nga sol masque ba pare na ngay raxas say loxo moo xam ni dañ koy raxas ak saabu wala dañ koy raxas ak gel bu ko defee bu ñu duggee tamit ci biir barab ba nga xam ni fa la ñu nekk di jullee ñu mën a fexe ba tamit distanciation boobu nga xam ne bii defoon nañ ko ñu dellu ca mën a bàyyi ay diggante ci diggante sàppe yi muy diggante yoo xam ne nit ñi di bañ a jondon santeeg ak di laalante loolu daal mooy li nga xam ni jàpp nañ ki bañ ko defee gis nañu résultat yi léegi dañoo bëgg tamit ñu dellu ci ndaxte deuxième vague bi nga xam ne bii ñaareelu vague bi ñëw na yàlla na ci ñépp ñun ñépp yàlla nañ ci mujj ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke xaadimu rasul waaye ñu tënku ci li nga xam ne lii mooy li sëriñ bi digle bu ko defee buñ ci tënkoo at li nga xam ne lii mooy li autorité yi nga xam ne jii ñoo yor état bi digle bu ko defee yàlla dinañ ñu mën a dimbali ba beneen maanaam période am ni ko état bi expliqué nga xam ne loolu seen mbir la muy maanaam ay vaccination ak yeneen yoo xam ne ay programme loo xam ne programme état bi waaye ñun li ñu war mooy liñ ñu digal ñu di ko def bëgg nañu fii ci Massalikul Jinaan nga xam ne mooy barab bi nga xam ne mooy barab bi gën a rëy ci Ndakaaru tey recevoir ay nit ku fiy ñëw ku ne nanga indi sa masque boo amul masque na nga ñëw def nañ fi comité boo xam ne bii ku amul masque te bëgg dugg ci jàkka ji dinañ la ko jox parce que biir enceinte bi kenn du fi dugg te doosal masque benn ñaareel bi tamit gis ngeen booba ba léegi bunt boo xam ne bii nit dina fa jaare ba dugg ci biir jumaa ji wala euh, wala ci ëtt bi teg nañ fa ay nit teg nañ fa ndox teg nañ fa saabu teg nañ fa eau de javel teg nañ fa tamit koo xam ne yor na gel boo xam ne boo tàllalee sa loxo mu defal la ci en quantité nga mën a raxas say say yoxo bu ko defee mën a dugg ci biir ñi nga xam ne ñoo yor tamit organisation bi ni ñuy jullee ci jumaa ji dinañu def nañ nga xamee ni boo noonu lañ ko defee woon muy am distanciation minimum un mètre diggante nit ku nekk ak ka nga xam ni kii moom nga war a dendal loolu lañ ci jublu mooy tënku ci ndigal ndigal na ku ci jublu ku ci tënk ku ne nanga jàpp ni dinga nga mucc ndaxte ñun ku ne xam na ni li sëriñ bi wax la ñuy def kon ma ciy woo sama bopp di ci woo mbooleem jullit di ci woo mbooleem taalibe ak fépp foo xam ne fii ndigalu sëriñ bi ma nga fay dem ñu fay jëfe ne lii mooy li nga xam ne lii moom la ñu bëgg ñun ñépp ñu àndandoo mànkoo ci ba pare def ko tey ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëw ko te moo sañ lu nekk mu teggal ñu lii nga xam ne aw tiis la teggi ko te mu bañ fee ñëwati bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb Sëriñ Tuuba ñu ci félicité tamit di ci encourager ñi nga xam ne ñoom la yàlla jël mbir mi teg ko ci seen kanam muy les autorités politiques ca président de la république Macky Sall jiitu ci ak ñi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ñi nga xam ne ñoom ñoo yor lii xam ni li ñu bëgg du dara lu dul lu ñu muccal ki bëgg nag li nga xam ne lii dafa bëgg da nga dafa bëgg nga mucc wax dëgg yàlla fu mu la woo fu ne war nga ko faa wuyu ndax nga yombal ko la nga xam ne lii mooy ab liggéeyam te liggéey bi du dara lu un travail scientifique ay nit a ko gëstu doon ay borom xam-xam doon ay docteur buñ ñu waxee nañu aw fii la ñu war a def rek mooy nañu aw fii te ki ñu yaakaar muy sëriñ bi it loolu la bëgg ñu tënku ci loolu lii daal moo doon waxtu wi moo doon communiqué bi nga xam ne bii moom laa bëggoon ñun ñëpp ñu partagé ko di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéenay taskatu xadabaar yi nga xam ni boo leen ko tasaaree dina tas tey ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yokk dimbal tey ñaan yàlla li nga xam ne bii mooy jàqare di nattu sans borom teg ko ci àddina bi yàlla na ko yàlla teggi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla nañu ko defal bi jaay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.